salaamaaleykum mbooloo mi euh, bandiraaɓe salminimo waaw loolu il faut ma wax ko xam naa naa leen wax lu tax ma wax ko nii léegi parce que dama jóge ci sama dëkku maam te li tukulóor yi di wax euh, min beltimo dama kontaan sama xol dafa sedd fu ma jógee donc euh, balaa may tàmbale ak yenn waxtaan bi rek dangeen may may ma nuyu kilifa yi fi teew fii ak samay xarit ak samay camarades yi fi nekk euh, bu may lim faaw tàmbale ci suñu tonton suñu mag suñu xarit nekk coordonnateur u comité bi fii ci cité Junxob muy Babacar Diop may nuyu nuyu bu spécial suma rakk suma xarit Cheikh Mbacké Fall nekk coordonnateur u jeune Benno Bokk Yaakaar fii ci Géejawaay damay nuyu aussi nuyu bu gën a sell suma yumpaañ suma xarit Xadi Njaay wax na ko sànq suñu diggante ñun ñaar du tey la tàmbali mais aussi faaw ma nuyu suma xarit suma frère koo xam ne dama am ci moom cofeel bu rëy rëy mu am ci man cofeel muy Youssou Fall bu parti socialiste defe naa ni ñooñu su ma leen limee daanaka lim naa coalition bi mais nag faaw lim ñoo xamante ne nii dañoo bokk ci man nekk ñoo xamee ne politique boolewuñu ku mel ni ki suma yaay suma xarit maire wan mais aussi suma xarit boo xamante ne dafa jógee ba HLM Paris nga xam ne avant la politique lañu ñu xamante bokk suñu faculté de médecine mu nekk fa di fa liggéey liggéey bu am solo muy Ndioro kuyaate ma bëgg yéen ñëpp ngeen tàccul ma ko bu baax a baax a baax notable yi nga xamante ne nii teewoon nañ fi ak ñi nga xam ne jóge nañ fi euh, ku mel ni ki tonton Ibrahima Sène nga xam dafa am mbokk bu wàññeeku moo tax mu dem léegi waaye itam surtout suma papa suma xarit Pa Mbassor Fay suma papa suma xarit Pa Seck nga xam ne mën naa wax ne ñooy samay conseillers principaux ci lépp loo xamante ne nii ay décisions yu ma war a jël la maa nuyu honorable député bi fi joggé sank muy Mika Ba suma coordonnateur fi ci Sam Notaire di nuyu itam Fatou Fall bi fi andalon sank mais maa ngi beral nuyo itamit suma xarit suma frère muy Sadibou Sow nga xamné mo fi téwal ASC bi barki démb rek ñu defal ma fi sargal bo xamanteni ni ba légui ni ñëpp koy netali Euh, bu ma nuyoo ñooñu nag damay nuyu sama staff mais sama staff du leen tudd ndax bu ma limee bu ma doon lim fi fanaan waaw xam naa ni Khady Diouf xam na li may wax euh, ñoom joleeg ñoom ñëpp xam nañ li may wax jigéen ñi laay jot a tudd sax mais góor ñi moom du ma jéem a tudd ndax bu ma limee dinaa jum euh, defe naa ni ñi ma jiitu léegi ci kàddu gi wax nañu touti ci bilan wu le président de la république Macky Sall bi nga xamné mo len di ñaan cadeau duma delu ci wat ci bilan bi ndax guddina te comme ñun dañuy baña togn te nenañu meeting yi minuit pile la wara jeex dama bëgg sama discours avant minuit mu jeex bala ñu naan ministre Bamba respecté wul loi bi wala respecté wul règlement yi lool motax bilan président defe naa ni bu ma nekkoon di lim tay fi lay fanaan kérok def naa ko ci sargal bi nga xamné mom lañu amone fi ci école bi mais toujours damay faral di wax ni euh, fu nekk tay président waroon na fa dem di campagne ba mu des fii ci cité Junqop ndax président daf leen defal cieur bo xamné cieur bu rëy a la toujours ma wax leen ko mané ne euh Sénégal depuis 1960 ba légui

ben président musula nommé doom ministre Macky Sall moo def lool rek doyna bilan à Guédiawaye mais bim mu ko defalee Guédiawaye dafa ëlbatikoo defal ko Sam Notaire parce que man Sam Notaire laa dëkk mu ëlbatikoo defal ko Cité Junkob donc yéen wa Cité Junkob waru moon taxaw sax di leen laaj ndaxam da ngeen di votel Macky Sall wala du ngeen votel Macky Sall loolu nag bokkul ak réalisation yi nga xamante ni tay def nako fep faut dem ci Sénégal fa sa bet demb dama fi di dem Fouta ndax dafa am suma xarit dafa ci parti war fa rejoindre camp Macky ma ne ma faaw ma meeting bobu nonu ma fi ni jaar ci yu bare bare bare nak fa la samay ndax ku mais Ndioum Thilé euh, Boubacar dem ba xalwaar dem démb ba Daara Xalaybe li ma fa gis ku ne Macky Sall liggéeyul c'est parce que da ngay wax lu la neex defe naa ni lii mu jot a tàmbali gëm naa ni buñ ci tegee juróomi at mu mottali ko Sénégal dootul ñee benn dëkk fii nii ci Afrique te loolu su ma ko waxee war ngeen ko gëm parce que fu bëree bëri ci Afrique dem naa fa. mais lima ma gis mu liggéey ci 5 ans yi amul benn président boo xamante ne liggéey na ko ci diiru mandat yu gudd yi nga président Abdou na ko na li nga ans Abdoulaye Wade ko 12 ans def nga ko ans donc dama bëgg rek ñu bañ distraire bañ nax dimanche Inshallah dama bëgg ngeen teel a ni ngeen ko daan école bi ma parce que je ngeen ma sigil dinaa am lu ma metti lool lool lool su ne école bii waxuma la gagné parce que gagné moom incha nañ ko mais dama bëgg gagné avec une grande marge boo xamante ne nii ñun responsable cité Nous yëpp dinañu dinañu bu ko président président positivement. loolu mooy li nga xamante ne nii moom laa leen bëggoon wax di leen gërëm di leen sant aw ma seen fay yàlla mi am fay yàlla na leen fay jërë ngeen jëf wa salaam merci.